أعوذ بالله من الشيطان a بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk jullit yi gannaaw ba nu leen nuyoo ziyaara leen ñu ñëwaat ak yéen ci seen jataay yu am solo yi la tey nag li ñuy waxtaane mooy zakatul fitr muy murum koor murum koor nag dafay loo xam ne dafa am solo lool ci aji woor ji dafa am solo ndax euh, zakatu fitr euh, mu am nag ay atte atte yi mooy euh, faratale ci ki woor ci ci jullit bi jullit bi moo xam jullit bu góor la wala bu jigéen zakatu fitr su fekkee aji woor na moo xam nag ndaw la wala muy moo xam woor na moo xam wóorul moo xam mag wala ndaw maanaa ki nga xam ni moo koy génne mooy ki nga xam ni mag la yilif ñi nga xam ni ñoom la nekkal day génneel nag ndaw ñi woor nan wala woor nu yëpp def leen koy génneel euh, su ko defee dafay laabal seen koor loolu nag euh, ibnu abbas radiallahu anhu mu ne zakatu fitr euh, dafay laabal aji koor ji moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis yu bari mu am nag ay ixtilaaf ñi nee nanu dañu koy mais li gën mooy période yi suñu woowee ba nga xam ni koor gaa ngi bëgg a jeex parce que mbokk yi li ñu ci nam mooy miskin bi nga koy jox mu mën ci def lim bëgg def kom yow nga xam ni da koy yëkkati jox ko ko moom it mu préparer julleem parce que jaaduwut ñuy bàyyi ba ci bis bi miskin yi di jéggat ci jàkka yeeg ci nangam di di laaj moo tax dañ leen koy teel a jox nunu leen koy joxee nag ñi ngi wax mudd ci muddu yonent bi sallallahu alayhi am na ay nattukaay yoo xam natt nañ ko ci ba nga xam ne moom nga ko war a joxe am na ñu natt huit cent soixante quinze ci bopp bu nekk su fekkee da nga am ay njaboot maanaam ku ci ne da nga koy génneel huit cent soixante quinze mbokk yi dinañ ko joxe xaalis boroom xam-xam yu bari d'accord nañ ci dinañ ko joxe xaalis nga nattu ko jox ko kenn ndax kin koy jox bu fekkee bu jëkk yaa ngi ko doon génne ci li ñuy dundee tàndarma wala ceeb wala dugub wala yu demee noonu waaye tey sunu seetloo ku nekk xam na ni li nit ki di jëfandikoo ci bisu kori gi du ceeb du tàndarma du dugub xëy na sax dugub ndax laax yeeg yooyu waaye ku ne xam na ni kenn ku ne bëgg na lekk ginaar miskin bi bëgg na ko wala yàpp miskin bi bëgg na ko wala leneen kon nag nga xayma ko ci xaalis jox ko ko léeg-léeg sax mu dimbali ko ci doomam solu mu dem jënd ndawal ñëw defar yooyu tam farata la maanaa dafa war a méngoo ak jamono ci li ngay def su ko defee nag miskin bi su ko jotee moom dina ci mën a def li mu bëgg a def waaw ndax loolu lañu ci jublu ñu ni nag képp koo xam ne def na ko lu jiitu ñuy julli am nga zakatul fitr te mooy sellal sa koor su fekkee nag def nga ko ñu julli ba noppi bu boobaa na nga xam ne sarax nga am rek ci lenn ci sarax yi noonu la ko xadis ba waxee kon daal mbokk yi nanu farlu teel ko def ci jamono yi nga xam nekk nañ ci fukk yu mujj yi loo ko gën a teel a def baax na loolu am na boroom xam-xam yu ci d'accord kon nag ñu def ko mooy laabal sunu koor ñu ñàpp ñu góorgóorlu ci ci ki ko mën incha allah kon suñ ñëwee ci euh, vingt sixième nuit muy ñaar fukkeelu guddi ak juróom benn dañuy def fukki rakka rakka bu ne dafay am euh, fukki rakka lay nekk nekk juróomi sëlmal waaye rakka bu ne am <clears throat> rakka bu ne am benn fatiha ak juróomi qul huwa allahu ahad yal na nu yàlla nangul boo sëlmalee nag nga def astaghfirullah euh, ñaar fukki yoon ak ñaar muy vingt deux fois yool bi yàlla dina la ko jox mu nekk yool bu yaatoo yaatoo yaatu yal nañu ko yàlla defal defal ko julli ci yëpp جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته